salaamaaleykum salaamaaleykum na ngeen def waaw yéen a ngi si jàmm bu baax naka liggéey bi yéen a ngi si kaw waaw tey day seetaan naa seen série bi aussi xam nga euh, man am naa si ñaari jàngat yu ma yu ma bëgg a ak yéen en fait euh, le cas Biram ah suma bon su ma xoolee dafa ni dafa na jógee. par exemple nan laa ko mën a waxee si olof dafa nar joge si si si lëndëm dugg si saafara bopp ngeen baamu si moo bien ah, mais biram dafa mani dafa na a jóge si lii xamante ni Jalika mu ngi def mu war rek kaa mais dama ma dama gis ne biram moom dafa bëgg nax booy bi pour jël si suuf quoi parce que biram dafa dafa xaw a doy wax élément bu garaaw biram dafa garaaw franchement dafa garaaw wax bu graw si rôle bi muy joué dafa dafa dafa dafa daf mooy gars yi xamante ni ñoom dañuy mën di sono jigéen quoi parce que dafa am point yu ñu koy jàppee et tout biram dafa mën ni loolu laa remarqué gis si moom dafa na jël copine Jalika si suuf te copine Jalika tamit boo seetloo biram xaw na ko intéressé wu tuuti. moom boo seetloo biram xaw na ko intéressé wu tuuti su biram su ko biram bëggoon a jël pour un moment moom day accepté parce que peut-être début bi dina bañ bañu mais en fait fi muy mujj day accepté comprend euh, bu ñëwee si côté Racky ah en fait Racky bu ngeen seetloo épisode yi ñu jàllee médecin bii doon na ko wax ak sa pap mu na ko xaw ma sa pap du si wax début bi waxu si dernier moment bi après bi mu fa demandé si rendez-vous yi dana ka xaw ma sa pap mais man dama gis ne rakki euh, kii muy dimbali noogu muy liggéey mu koy dimbali yërmande bi nekk si ñoom ñaar yërmande bi mu koy yërëm noogu ak paa bi aussi xool bi muy xool rakki man dama dama gëm ni kooku mooy papam ba firaw ma mujje euh, su amul dina ma dina ma jaaxal lool dina ma ñaari jàngat yoogu daal laa si am si fi mu tey euh, ma bëgg ko partager mooy que euh, Biram voilà dafa dafa dafa na defati beneen tojaangi comprends te loolu arrangé wu ko parce que moom mu réglé problème bi moo ko arrangé moom man pour man biram dafa war a mën a changé xam nga voilà dundaat beneen vie pour mën a récupérer parce que pour mën a récupérer euh, Jalika loolu moo koy arrangé parce que loolu rek yoo mën a récupérer Jalika mooy que mu changé bàyyi naan bàyyi mu doon def yëpp xam nga bàyyi doxaanantu bi gauche et di def ak jabaram pour mën a récupérer Jalika loolu rek moo mën a tax Jalika mën a dem ba am yërmande benn bi mu mën a d'accord ak sëy bi am mais euh, rakki aussi mooy li ma leen doon wax rek ne nee naa leen man mënuma conserver rakki yi li muy dund xam nga ñoom demeewul noonu rakki moom mooy moom mooy moom góor si seen kër booy xoolee parce que mooy jigéen mooy góor seen kër ba pare euh, voilà. milieu bi li muy li muy incarné wërëy parce que tey Racky mu ngi yóbbu copin bi fële si si joo bi ñu war a def xam nga album bi jéem a xool niñ koy kiiwee pour génn te boo xoolee ba fi ñuy mujjee Racky mooy fay lépp <laughs> man dama naan no Racky xanaa moom moo ëpp ab biram bi xam fait man vraiment oh, dama naa kon Racky moo ëpp ab salaire Birame te pourtant Racky Birame mooy patron non donc euh, erreur yu ndaw ñu ngi nekk si biir ba tey yu ndaw ñu ngi nekk si biir ba tey mais nag euh, ba fi ñuy mujjee tamit si kaaw xam Racky Racky euh, xëy na bés mën na ñëw yaayam am si occasion moom ak paa boobu wala moom comme ni muy waxee di dimbali paa boobu mu seetal ko fu mu dëkk ba yaayam dikk fiir xam nga mm, kooku mu nekk papaam comprend mais man bokk sama gëm-gëm raaki pa bi muy dimbali noo si chantier bi papaam la sama gëm-gëm bon ñaari jàngat yoogaa si am ma bëggoon ko partager ak yéen rek di leen ñaanal wala liggéey bi gën a jëm seen kanam incha allah. waaw sëñ bi su ma dëggoo sa vidéo tey épisode vingt huit après video bi nga joxe euh, si côté cas de yaa ngi wax ne Lalla euh, su fekkoon ne de teg plan day day def dof lu par exemple comme ni nga ko waxee euh, su nekkee moom kese hmm, en fait. dina dina def yëfi nit waaw loogu loogu mën na nekk mais nag eh, bu ñu fàtte ne film ah, en fait xam nga film la te dañ koy joué dañ koy joué niñ ko war a joué ça que day yomb ngeen wan ñu laal benn moment si tey mu nekk nit day yomb si ñun ñu koy seetaan en fait kon bu boobaa euh, rôle laal la du am sens kon ñun. audio yi ñuy jàllale aussi tamit du am sens i sa comprendre nga wax donc pour man euh, man bokk sama gëm-gëm que laal plan bi mu teg si nga nekk ba léegi dégg nga nag parce que laal la euh, moom yàgg na si action boobu ni Cheikh mu ngi doxaan et tout xam bon mu jaral ko mu doon si perte xaalisam di si fay nit pour mu kay topp di def di ay foto yu neex moo am que preuve yu leer ndañ donc euh, wax na mën a dékku ñu annoncé que mariage mën na nekk mën na dékku jigéen war na ko mën a dékku parce que waroon na si bàyyi sax xel mais nag eh, bu ñu fàttee ne am nu moo bu laal la waxoon ngeen bàyyi si xel am nu moo bu laal la waxoon mu ngi wax ni. dañ ko liggéey xaw ma sëriñ rab diw nee na dañ ko liggéey nga bàyyi ko waaw nga bàyyi ko nga fase ko xam nga genre wax boobu yow mi seetaan soo ko dëkk e, soo amee jàngat jàngat tuuti li ngay jàng foofu mooy que laala dafa mën ni dafay annoncé Cheikh pour xamal que ne moom dañ ko liggéey comprendre mu bàyyi ko Cheikh nag mën na mën na toog xalaat. parce que boo déggoo sens si biir épisode am mu ngi koy wax ne kaan lan moo la métti xam nga man takkuma woon jabar pour lii ah lii ah lii parce que dëgg takku jabar pour méttital ko et tout et tout mais nag méttital na ko avant muy takk jabar parce que góor su demee bay andi jigéen sa kaw la rek loogu méttital la loogu xeetu méttital la comprends nga voyage yi nga loo ti am wóoru ko def donc foogu Cheikh tamit aussi xaw na yaax deru góor ñi tuuti mais yow yëpp mu ngi fi àddina aussi film bi importance bi mooy que lii ñu fi joué yëpp nii dañ koy dund nii dañ koy dund mu métti si moom tey film bi laase na ko mu mën a sax wax aussi donc loolu yëpp na importance xam mais lan la et eh, attention lan la fa mu ne woon nañ bàyyi xel lan la jigéen nga jigéen boo xam te cerveau voilà dafa dafa dafa dafa am solo dafa dafa muus comprend lan la dafa muus dafa yeew aussi comprend te jigéen dafa am ay pexe yoo xam te te jigéen dafa lëndëm donc lan la eh, suñu wanee si hôpital bi nekk fa nite eh, du am sens ku ko bette kon du am sens mais man li ma gëm ba gëm ko mooy laal la ala plan bu muy teg voilà loolu gëm te man li ma gëm ba gëm ko cheikh boo maytu dina fase fase nag après dernier film yi fin de film bi mu doog a defaat mariage bi waaw man bokk sama gis-gis